ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen jox seen wàccuwaay waaw lii ba jàmm la damay yokk waaw tey caat ñu ngi ñëw fi nga xamante ne mooy sa gox nga dëkk yoof nekk écurie yoof tey def fi nga mante ni mooy garage yi Tongoor sa open press tey caat ñëpp la fekk si tey ñëpp génn am combat ak ki nga mooy Bulldozer le huit incha allahu rabbi dañ lay bàyyi nga nuyu. nuyu mbokk yi nga xamante ne ñoo la ñoo fekk si ni ki écurie bi nga nekk ak waa Yoff waaw yar ma damay sant yàlla bu baax julli si yonent bi santaat sumay ñaari waajur bu baax a baax a baax baax di leen nuyu bi xam nga di leen di leen di leen jégalu bi xam nga yéen ñëpp yéen boobu la yéen a ngi perdre seen temps di nuyu écurie Yoff xam nga di nuyu coach yi Abibou xam nga Ismaïla xam nga Baye Ngagne xam nga di nuyu sunu euh, sunu tête de file écurie nuyu Modja ñu ngi koy bu baax di nuyu écurie Yoff yëpp bu ñu limee rek xam nga lim nañ ñëpp ñu ngi lim ñëpp waaw gis nañu ko rek bi yokk Bulldozer mayante wu leen dara da ngeen ñëw di tàngal ba mu tàng Bulldozer dugg na yof am nu mu def yow nga yaa koy freiné lan nga jël Bulldozer non Bulldozer lamb moo ñu boole moo dama jël ko lamb moo ñu boole mu nekk sama adversaire bu ma respecté xam nga liggéey naa li ma war a liggéey mais si kàttanu yàlla le huit dina xam ne man mii sama yom du ko baare incha allah waa tey jii moom moom mi ngi si mbapat yi yaa ngi koy bàyyi xel ndax mi ngi ravager mbapat yi bu baax est ce que li benn làmb la du ay tournoi de. benn làmb la benn kale mu jeex incha allah rabi noonu lay demee. foo teg loolu fu mu teg loolu fu mu teg nii benn kale la war jeexee fu mu teg loolu fan la ko teg. waaw Serigne nee na foo teg loolu benn kale mu jeex foo ko teg. non du question mystique bu mystique amul woon mystique bu amul woon dara amul. billaahi wallaahi fii ba suba du ma daan. billaahi wallaahi taala maa dàq bëre maa ëpp doole maa man te le yàlla yàlla àndax man si waa léegi. waa gars yi mel nañu tuuti rek léegi bu arbitre sifflé da ngay fekki wala da ngay xaar wala na ñëw pour xeex. non man tey ama dama am njiit. waaw su may staff xam lu luñ ma wax rek coach yi luñ ma wax loolu def. xam nga maa ngi déglu staff yi soit tey ama ama bu ama alaas ah, bu ama xam nga ngoom Ngom. xam nga ay munu Assane Taw ñoom jaamu laay sama gaa yi luñ ma wax rek ay mobba monsieur Diaw luñ ma wax loolu def xulaar xam nga. Mm-hmm. Doudou Gueye lépp luñ ma wax ma def ko. waaw léegi moom bu ñëwee diriger nooy def. damay gën a neex xam laa ma la moo si déranger daw bi xam naa ne bu ñu dajee moom yéen di ngeen noppal doo leen fi yàgg hmm. billaahi doo leen filmé cinq minutes du wóor doo leen ko filmé si kàttanu yàlla wuyul waaw nee na nee li nga foog di loolu nee na ëppoo ko doole gënoo ko tañ ëppoo ko xam-xam si bëre ne li nga foog di loolu waaw nee na nee na daan na sama papa gin bu yoof waaw billaahi wallaahi taala bu dina xam ne yoof kenn du fi moromam barke Seydina eh, moom yow nee yaa ko mun yaa ëpp doole. ci koo xamante ne dalanteegu caat. fan nga teg na yaa ko mun yaa ko ëpp doole. xam nga nit ki nekk li nga liggéey li nga liggéey gëm moom dafa taxaw ni yoof benn bër mënu mënu kaa daan si yoof loolu la wax Malick Niang ba suuf kenn mënu kaa moo tax ma xam ne ma ni billaahi wallaahi taala du yam mosuma kontaan ak moom mosuma jàppante ak moom mais bis bu ma moom billaahi benn jàpp bu ma ko jàppee dama koy daan si kattanu suñu borom waaw keroog bi nga ñëwee keroog bi nga ñëwee signature ñi kenn si ñi nga àndal nee na doo ko dóor loolu ngay dëggal wala da ngeen koy dóor mu daanu lan nga indi jour boobu ñooñu wax ñu loolu loolu maa ko wax man maa ne day yooru maay maay maay dóor songu xeex mu dóor sama tànk yi loolu maa ko wax te noonu lay demee si kàttanu suñu borom. mais yaa ngi bàyyi xel ne Bulldozer xeexkat la te fit bu dee fit am na ko xam naa ne am nga fit ndaanaan nga mais yaa ngi bàyyi xel ne xeexkat la. Bulldozer mbër la moo tax ma liggéey si lépp li ma war a liggéey jox ko respect xam naa ne mën na maa daan moo tax ma liggéey si loo xamante ne daawu ko liggéey su may combat xam nga yàlla yàlla suturaal rek xam pare nañ quoi pare nañ tous les plans yàlla xam na loolu Babacar waaw ay ca ñu mu mel ni dañoo gis nga xaw a réservé wu tuuti lan moo ko waral dimension combat bi la wala adversaire bi la. non gis nga gis nga li fi nekk si mbooloo gis nga li fi nekk si mbooloo moo tax moo respecté suma bopp xam li may def bu baax a baax a baax moo tax mu téye sama bopp concentré suma combat xool nu ma def ba tànn combat waaw sëriñ may ma ko caat ngay bëree xale bi nga xamante ni yaakaar naa boobu ba léegi muy topp na mbappari tey yow gi euh, xeex bi. est-ce que mu bëree yow du la jumloo si si làmb ji. waaw ah, sëriñ boobu léegi maa ngi contact depuis trois lii benn làmb la du ay contact de du ay jàppate lii benn combat la soit mu dem 30 secondes soit mu dem une euh, une minute. dem nga une moom ça dépasse moom. xam naa bu taxee moom dinaa gën am lu ma neex. mais Bulldozer aussi aussi du adversaire bu ñu mën a mënee sax xam nga loolu. non du ma ko maan moole du ma ko maan mais qualité yi ñoo bokkul ah qualité yi ñoo xam nga qualité yi bokkul 15 combats la am benn défaite la am 14 combats yi ma daan yëpp bu nekk sa morom bokkul taxool du ma. waaw foofu balaa may ñëwaat damay ñëw si benn affaire bu mu wax moom keroog mu wax signature bi nee na bu nu boolee écurie Yoff dégg nga mu wax ko mbëri écurie Yoff yëpp bu ñu boolee mu boole leen daan loo koy tontu. dégg naa loolu. loolu nag moo loolu moo ma metti moo tax ma liggéey lépp loo xamante ne daa ma ko liggéey pour bëgg a wan ne yoof billaahi wallaahi dafa war a yàlla moo dogal moo war fay daa mbër rek mais am moromam newu fi adversaire yi ma doon bëri ñoo gën a danger Bulldozer ñoo mën Bulldozer ñoo ñoo gën a danger bëree sa crochet dina ko dal ba pare jàppante bi est sa sa ak kii sa combat ak Bulldozer da ngay bëre wala da xeex crochet bi il faut mu dal ko mu a jàpp wala. Fane moom bu dee bu dee bëgg dégg-dëgg pare naa tous les plans billaay lépp loo xaat pare naa pour loolu. waaw Ousseyn. Thiat dañoo déggoon nga ne dajale mbooloo moo tax nga jël combat bi ñu dem ba ci biir gis na nga génn ci wax ji lan moo waral loolu. non loolu loolu waxi mbër la rek. man bi ma koy jël loolu laa waxoon pour dajale samay supporter moo tax moo tax ma jël ko mais man dofuma du ma ngaaka boole xam naa ne mbër laa dajal xam naa ne làmbkat laa dajal dama koy jox respect bu jeexee na damay liggéey li ma war a liggéey pour daan ko ci loolu laa neex mais loolu fàtte naa ko ay supporter yi fàtte naa loolu de instant nu ma ko daanee laay xool. ma ñëw yan yan ma léegi moom dégg naa keroog mu ni ba léegi moom mi ngi bëre te ñu bëgg a am mënu gu leen am si làmba tey mu jël Bulldozer année blanche moo waral mu jël Bulldozer est-ce que tamit loolu bu ko bëree waale si contre ma Bulldozer est-ce que du ay jafe-jafe si combat bi. ni ma ni ma bëree sama combat yi yii bii laay gën a yokk du ma ka ñàkk respect ama du ma def loo xam xamante ne wartu ma kaa def parce que man instant yii tool li topp sama ginaar dafa bëri kon lépp lu may def dama ko war a xool xoolaat ko bu baax du ma asaaloo sama combat. lépp lu ma lépp lu mën doon lépp lu doon sama bakkan bii dama koy caat est-ce nekkul li nga ko gis moo tax nga changé avis ne du loolu moo tax nga jël ko est nekkul li nga ko gis état de forme bi moo tax nga changé li nga waxoon. non dëgg yàlla mënoo mënoo am état état état bëgg maa baax état mënul nekk si àdduna. mais daa yokku moom. waaw léegi léegi léegi man yokku am naa doole yàlla may na ma kàttan bu bëri boo xam ne boo ma ko jàppee daan ko incha allah doole ñaari yoon. benn doole mooy sa ñaari yow. bu ñu jàppante Ousseyn loolu maa ko waxoon te du dañaat bu ñu jàppante nga xam ne maa ko ëpp doole ñaar yoon. billaahi wallaahi taalaay. dégg nga li nga wax. ma ne naka nga mën a def pour corriger ko parce que gis nañ topp bi mu la topp mel ni comme si da nga ko wagal moom dafa mel ni dafa am faiblesse bu mu gis yow ba bëgg koo wane. loolu la wax. man li ma gën a li ma gën a neex si waaj moo nee damay wane le 8 janvier damay wane ngir yàlla rek li mu wax na dëggal boppam ngir yàlla mu ñëw def loolu maa ngi nuyu xam nga suma goro bu baax mu Yacine Koli maa ngi ko nuyu di nuyu suma soxna xam nga nuyu famille bi yëpp maa ngi leen nuyu bu baax a baax baax waa léegi Thiat dañu toll foo te ne mooy fi nga xamante ne moom la ñuy jeexalee léegi mobilisation bi la ñuy laaj foo si toll ak waa Yoff nan lañ seen combat bi ñu am fan la leen toll ak supporters yi lan nga leen di wax waaw ñun ñun boo gisee lii suñu xel mu ngi dal yoof yëpp si kàttanu suñu borom tey daa match bu am moo tax mu demee nii tuuti mais billaahi wallaahi taalaay xam nga làmba ji dinaa mobiliser loo xamante ne dara dara dara mosu leen ko gis si mobilisation xam nga di ñaanal nag suma suma yaay ji fi jógee parce que sama yaay dafa wàññeeku xam nga maa ngi koy baax non sama yaay mooy sama mooy sama yaay rek parce que saa may si moom mu ñaanal ma muy tànn muy mu nigi bi may signature dama dama dugg si këram dem signature ñëwaat billaahi wallaahi taala yeewu fajar ñu tàgg ma ko xam mu doon lu ñu naqar trop ñu ngi koy jaale ay famam yëpp ñu ngi jaale xam nga suñu taawu kër mu Ibrahima ñu ngi koy jaale bu baax a baax a baax waaw léegi lan ngay tàggoo caat caat looy tàggoo bu koy tàggatoo bi da ngay tàggatoo léegi Bulldozer bu bëree bu xeexee luy xew bu bëree bu xeexee bu indee bëre euh, pël bu rafet billaay li ma lay wax lu ma wóor la lu mu mënti def si kàttan suñu borom dama koy daan incha allahu rabbi. waaw Thiat nan ngay tàggoo. di sant yàlla bu baax xam di julliwaat suñu yorante bi sant sama ñaari waajur di woo di woo dëkku lébu yëpp xam nga Ngor Wakaam Yoof xam Caaray ñu leen di woo si combat bi tundu lébu ñu leen di woo si combat bi ñu jàppale ñu xam bëgg na gars yi ñu gën a veillé si mobilisation bi parce que xam tongoor ba ñu leen di woo seen doom moo war a mbëri fi ne mënuñu kenn mënuñu si na ñëw jàppale ñu suñu soutenir ñu xam nga yóbbu yokk kaar yi yokkal ñu ticket yi si woo suñu ministre Abdoulaye Diop Sarr ancien ministre ñu ngi lay woo nga ñëw jàppale daa nga ñu teg loxo Abdou Naar xam nga ñëw nga teg ñu loxo Moustapha Tall DG ñëw nga teg ñu loxo monsieur le maire Modou Gueye xam mam maam Ousmane Ndoye xam nga maam Baye Seydi Laye ñu ngi lay woo si combat bi xam nga di nuyu Abdou Bey bu baax Abdou Bey Abdou Bey siyaar naa la bu baax sant naa la bu baax xam nga di nuyu coach yëpp di nuyu coach yëpp di nuyu sumay parents yëpp sumay famille yëpp maa ngi leen nuyu waa Mbour xam nga Jogo xam nga Ndar Yoff bàyyiwuma kenn xama nga di di woo Tahirou Sarr bu jàpp si combat bi bu baax a baax a baax a baax xam di woo képp koo xamante ne da ngay bëgg caatu yoof rek xam nga ñu siy woo di woo mool yëpp nag la dimanche dama bëgg mool yëpp bañuy dem géej ñëw soutenir ma dem stade parce que man mool laa xam nga damay dem géej di woo ñurkat yëpp xam di ko jiital si loxo ñoom xulaar ak ñoom Taaro xam nga maa ngi koy seen loxo ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp si xam Mafal ñu ngi lay woo Père Mafal Mawlu Mbal ñu ngi lay woo nga ñëw jàppal ñu si combat bi Papa Ngala Papa Ngala ñëw nga jàppal ñu si ticket yi problème bu ticket la na am maali kenn di nuyu Assane Taw bu baax imnu di nuyu waa combat bi ñi nga xam ne ñooy combat bi waa gabar gi maa ngi leen di woo bu baax si combat bi xam di ñëpp di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi santaat sama ñaari waajur xam nga di nuyu kiri booy sama mongol bi xam maa ngi koy maa siyaar bu baax di nuyu suñu tëdd fii muy Modja xam nga di ñaanal yàlla gin yàlla yàlla na ko yàlla may ndam xam nga di suñu suñu taawu kër Ablaye Gueye xam nga Mor Seck Adama maa ngi bu baax di nuyu samay famille yëpp di nuyu xam nga suñu papa papa Aligne fal la ñu di la ñaanal jàmm xam nga di ñaanal tanta tam di tan tan muy mën a fi mu tëdd yàlla na gënal fii ñu fi bàyyi yàlla na yàlla taxaw comme ni mu leen daan taxawoo xam nga di ñaanal onge yàlla na ko yàlla may ndam di leen wax gars yi dimanche incha allahu rabi ñëw leen ñëw leen ñu teel a mobiliser. jërëjëf bilaay walaay ma wan ne waa maa man maa ëpp doole maa dàq bëre si kàttan. jërëjëf jërëjëf jërëjëf amateur yi Ndiaye production mi nga xam ne journée bu mu tëgg amateur duñ ci am déception bëgg di dox ci logique ku bégal moo tax mu joxaat leen rendez-vous le 8 janvier 2023 ci arène nationale daal di ñuy indil combat yoo xam ne boo ci seppi woon mu tëj làmb ji ne dama koy bégalee amateur yi kaddu laa leen koy jox ndax seeni xol féex ma ne ko Fallou Ndiaye limal ma say combat mu ne ma Boy Diop 2 dana laaleeg bu Diar Jibson dana laaleeg Boy Bankas Karbala dana laaleeg Pape Dianka Arobas dana laaleeg Ada Boy Bawol caatu Yoff muy xale bi nga xam ne Yoff ak Ngor ak Wakam am ci moom fierté mu war a jàkkaarloog Bill Désert muy gone gi nga xam ne làmb yépp ko nangul boo demee ca lutte simple mu fay toj nga ñëw ci lutte avec frappe muy wane boppam muy gone caaro yëmbal Malika Buun foofi taxaw ne Bill Désert ñu ne la champion ngoog ñaar ñii la Njaay production dajale ci arène nationale le janvier toftal ci ay combat préliminaire làmb ja toj Njaay ne loolu moom mooy première édition drapeau Awa Baldé nekk femme d'affaires nekk yooya ñu ngi ànd ak Sips ànd ak Ndiaye Global Business ànd ak Guèye et ànd ak Kewel Info ñu ne nag ça sera en direct et en exclusivité sur seen affiche point com ku bëgg a seetaan lamb ji pay-per-view la xaar ñu ci seen affiche point com daal di gis lu mucc ay kon mbokk yi bés baa ngoog bu nu ko kenn nit